بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا بنيو سنت الله سبحانه وتعالى جل جنت متد بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم درس وارنج أجيان جتايو fàttali yi nga xam ne dañ koy def alxames bi nekk ci waxtu wi sunu jotaay bi passé tàmbali woon nañ di chara téere bi nga xam ne mooy yawmiyatul xaaj ca mooy maanaam bisi alaaji bi ci biir waxtu aj màkka waxtu wu nekk ak bisu set lam ca war a def ñu tënkoon ci li ëpp solo ci attay aj aj gi incha allahu taala ñu bëgg nag di ko firi ànd koog ñi nga xam ne ñoo arfaan jëm màkkatal mukarrama incha allahu taala bala ñoo egg ci waxtu wi jàpp nañ ne dinañ jeexal téere bi bu soobee yàlla tey ñu ngi toll ci maqasidul xajji ca mooy lan mooy jubluwaayu aj aj lan mooy ay jubluwaayam lan moo tax sunu borom subhanahu wa taala santaane ko lan mooy li nga xam ne ay jeexital la ak ay njariñ yoo xam ne aj dana ko bàyyi ci jaam bi mu wax ne hunaka xikamun azimatun wa fawaidun jalila fi tashrici alxaj وهذه الحكم والفوائد منصوصة على بعدها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي ملموسة غالبا عند أداء هذه العبادة منام فوحنا أمنا أي خرن يو مغ أك أي نجرن يري yu nekk ci yoonal gi nga xam ne yàlla yoonal na ko aj xereñu yooyu nag ak njariñ yooyu dañ koy fekk ci téere bi yàlla bi subhanahu wa taala suñ boroom di ko junju comme niñ koy fekkee ci xadiis yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ca tamit képp koo xam ne aj nga ni ko yàlla bëggee ak ni ko yonte bi sasam jàngalee woon la shakka ne ku la gis dana gis ci yow jeexital yooyu nga xam ne moo taxoon borom bi subhanahu wa taala santaane aj منو منها على سبيل المثال بوك نتي جيختالي اج اك اي نجارينم اك اي خرينيم تحقيق التوحيد تا موي مانام دغل ليغا خامني موي ويتال يالا سي سباس باس لول اج داكوي وذلك في تعظيم الله تعالى بالعباده التي تتمثل في جميع شعائر الحج kattalbiyati waltawaafi walsacyi walnaxri walxalqi wa ramyi aljimaari wa naxwiha min anwaaci alcibadat allati laa yajuusu sarfu cheyin minha li gayri llahi wa jal tawxid nag niñ koy jànge ci aj mooy xam ngeen aj li ci nekk lépp ay jaamu yàlla la yoo xam ne boo ci xalaatee dangay ngay gis ne ki koy def dafa jébbalu ci borom bi subhanahu wa taala te tamit sori lépp loo xam ne ak bokkaale la lu mel ne at talbiya muy baat yi nga xam ne ci ngay duggee ci aj gi fees dell ak wéetal yàlla ndax baat yi mooy lan labbayk allahumma labbayk labbayka laa sharika laka labbayk yow yàlla wuy si naa la yow yàlla wuy si naa la laa sharika lak du ma la bokkaale kenn fii nag bu fa araabi masaana toll ñoom avant yàlla di yoni yonti yàlla muhammad dañ ci daan dolli benn baat naan wax illa sharikan huwa lak tamliku huwa ma malak manam pour dugal ci seen xërëm bi ci biir la bayka ji kon pour wax ne ne bi l'islam ñëwee nag yonti sasam dafa ñëw baat boobu di baat bu sell mu jàngale ko ci anam goo xam ne mbooleem baati bokkaale yiñ ci dugaloon yonti yàlla muhammad dindi ko labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak lépp lu di cant lépp luy xéewal lépp luy nguur yow rek la ñeel yow yàlla kenn bokk kook yow xam nga ne kon baat yooyu gis nga ne ni mu feese dell ak tawxiid mu tegaat ca wa tawaaf muy wër gi nga xam ne yaa ngi koy wër néegub yàlla bi subhaanahu wa taala loolu tamit beneen mandarga la ci mandarga yi wéetali yàlla ak nangu koo jaamu ak jébbuli ci moom léeg na nga dégg orientaliste yi nga xam ne ñoom dañuy gàkkal lislaam waxtu wu di tuumaal jullit ñi ne leen ay animiste ngeen yéen ndax yéen a ngi jaamu kaaba gi ci jaamu kaaba gi ay xeer rek la su fekk ne jullit ñi ñoom jaamuñ kaaba gi boroom kaaba gi la ñuy jaamu fal yaabudu rabba hada al bayt waxul fal yaabudu hada al bayt kon jaamu yàlla la ñuy def ci kaaba gi ndax kaaba gi mooy symboliser néegu bi yàlla subhanahu wa taala ci kaw suuf yàlla nañu dee leen wër kaaba gi ngir jaamoo ma ko man yàlla waaye jaamewu leen xeer yi ci boppam والسعي نكنون دخ جيني دخ ولا دو جيني دو ديجنت سفاق مروة جيب توب يا الله سبحانه وتعالى الدجل جن كو دجل دخ يا الله سبحانه وتعالى مون فمن فرض في الفجر مون ون ولا فلا جناها عليهما أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فهو شاكر عليم نيوان نبرم سبحانه وتعالى نير نعين دي دم تا سفاق مروة دي كور دخ تأجل بوك لولا بابا منكي وحد نيجا هم دنيو بكون تي وقريش nga xam ne ñoom dañ daan lànk ne ñoom bokkuñu ci ñu ko war a tawaaf euh, mu teg ci wan naxar muy rey gi nga xam ne da koy rey ay gàtt wala ay gëléem wala leneen di ko jaamoo yàlla te loolu bokk ci jaamu yàlla yi gën a màgg ndax borom bi yaa ngi dégg muy wax ci aaya ba ne fa salli li rabbika wan xar ni nga xamee ne noonu ngay julleel yàlla ni ki noonu tamit booy rey na nga rayal yàlla subhanahu wa taala bu rayal ab xëram bu rayal ab rawaan bu raway ay xàmb bu rayal dara yow julit bi li nga xam ne moom nga war a rey tuur deret ngir moom wut te nekk kenn ku yàlla subhanahu wa taala comme ni nga xamee ne booy julli yàlla rek ngay jullil wal xalaq ba ci sax rey war gi ngay war sa karaw ci waxtu yi nga xam ne moom nga ko war a wate wala nga war koo wàññi loolu ci xeeti jaamu yàlla yi la bokk waram yul jimaar sànni gi ngay sànni ay jamra wa naxwiha min anwaa al ibadat ak yeneen jaamu yàlla yi nga xam ne mi ngi ci biir aj gi ca muy loo xam ne laa yajuusu sarfu cheyin minha li gayrillahi taala ci yi nga xam ne kenn sëñta defal keneen ku dudi yàlla lenn ci mbir yooyu kon loolu dafay wane tawxid day wane wéetal yàlla kon gis nga aj màkk ni ñuy jàngale wéetal yàlla nga xam ne kon yow mi ci dugg fexeel ba aj gi ci sa bopp nga def ko ngir jëmmi yàlla wa atimul xajja wala umrata lillah waaye tamit fexeel ba boo ca génnee dañ ci lépp loo xam ne wàllu bokkaale yàlla la wala lu ñu taqal sa pas-pas borom bi nee na ci alquran wa ma umiru illa li yabudu llaha muxlisina lahu diina xunafa waaw borom bi nee na digaluma leen ludul ngeen jaamu yàlla ca sellal jaamu gi xunafa ngeen moytu ngeen sori ngeen jeng sori lépp loo xam ne nii bokkaale yàlla la wa yuqimu salaata ca ñuy taxawal julli wa yutu zakata ca muy jooxe azaka yàlla teg ca ne wa dalika diinul qayima nee na lii ma leen sant mooy diine ju jub ji maam diine ju jub mooy lan mooy pas-pas bu tege ci tawxiid jaamu yàlla gu dëppook sunna ak jikko yu rafet loolu boo ko boolee doon nga ku nekk ku sa sa diine sell na sa diine baax na sa diine jub na loolu loolu mooy diinul qayima mu tegaat ci borom bi ne wa atimul xajja wala umrata lillah na ngeen matal aj ak umra bu ngeen ko dee def bu ci bu leen ci bàyyi lenn ci atte yi nga xam ne moom la àndal waaye ngeen def ko tamit ngir jëmmi yàlla subhanahu wa ñaareel bi ci li tax mooy jubluwaay aj muy ay objectif ak ay finalité am mooy taxsilu taqwa aj màkka dafay tënk nit dafay yar nit ci ragal yàlla ragal yàlla mooy rek mooy wommatu ci ay ndigalam def ca la nga man lépp ay tereem nga bàyyi ko sori ko wa taqwa hiya al imtithaalu mutlaqan nee mooy maanaam joxe sa bopp jébbalu nangul yàlla suñu borom subhanahu wa taala wa dalika bi fi'l al awamiri wa ijtinaabi nawahi ki def li la yàlla digal bàyyi li la yàlla tere mu ne fal hajj mazharun min madahiri taqwa nee na aj dafay wone jëfi aj day wone ak ragal yàlla maam ki nga xam ne mi ngi dem di aji di def la ko fa yàlla sant loolu ku ko gis xam ne kii ku ragal yàlla subhanahu wa taala ngi nii ndax la fa nekk lépp ci ay jëf dafay tegtale loolu lima fihi min fi'li taatin mutanawwi'a حتى شقوا على النفس دا بو ريمي جي بير اجي دا نلا دافلو يو خامني مان نام تامو كو وون يو خامني دا بن كوي ديف دالاي وني لي اوت غنمال يالا رك موتا غا ديكو ديف سبحانه وتعالى اجي في اي ديغلام مكلف بو جيغي في دي كليفا دي بروم نجابوت دم نيو لا سيري ييغا دام سولي ييب سوميكو تك نلا تي لاخاسو نياري مورسو رك بي غاي ودوكو بيغا لاخاسو تكو سي سا كاو nga nangu lolou def ko ak mbekté ak contente loolu xam ngeen ne ragal yàlla rek moo tax nit di ko def ñooy la kat bul laajati parfum diggante bi nga solee yére boobu ah bul jonjoteeg say say soxna yaa ngi dégg eh, bu rey eh, lu ñu lu ñuy rëbb bul wat sa karaw diggante boobu mel na dañ laa pini ne la yii yëpp ju def dara feeg pareegoo nga nangu loolu di ko moytu di ko teet ba loo ci bëgg def sax boo ko fàttee sax da ngay mujj gaaw delluwaat ci li nga nekkoon ndax man naam taamoo ko woon loolu mbokk yi لم يتكلم رجل يا سبحانه وتعالى وما فيه من اجتناب كثير مما تعود عليه المرء في حياته اليومية من المباحات جسنا بلجي درنا أمنا يوم أي مباحات لو نشيء يو دعانون يو هم ندرنا نيكو جشارة عتري واي جمال جنگي أمنا دير بو أمنا بو فتول رنجان لي يب بوجي دف بن وا بوجي دف سان أمنا أمنا دان بون لي دان وا نلا إمانغا وور ولا راي wala nga wala nga leele muy fidya kon loolu li muy wane mooy ñi ngi lay tàggat yaa ngi ci benn retraite spirituelle boo xam ne da ci ciy tënk sa bakkan sa bakkan da nga ko boyaloon ci li ci yi daganoon am ñoo xam ne sax danañ egg ba def ci lu xam ne dagañul woon tey nag yi dagan sax dañ la ko dafa am diggante bu ñu la ko tere ngir yar sa bakkan bi tënk la ci lu neex yàlla suñu borom subhanahu wa taala fadlan anil makruhat waxuma laa nag yi nga xam ne moom dañ koo araamaloon àllum neen moom wala yi nga xam dañ koo siboon moom boo nekkee ci aj ci lañ koy gën a araame ci lañ koy gën a sibee waxtaan wi fees jinjoon naa leen yenn ci pratique yi nga xam ne ci erreur yi yenn ajkat yi di def alaaj yi di def dem ba makka yaa ngi dégg armal taal sab cigarette di tux yàlla ci yàlla musal léeg nga gis ko ca dara woo ko lu ñàkk not sa bakkan bi ndax am na loo xam ne boo ko doon def sax ci ay jamono boo demee ba suubu ci jaamu yàlla ko toll ne aj da nga ne ah man kat damaa war a profité ci diggante bii wax dëgg yàlla jéem a bàyyi lii nga xam ne moom saytaane manoon na ma ci ndax boo ci góorgóorlu diggante bi ngay nekk ci aj ba ñibbisi yàlla mën na laa dimbale maanaam doo ci delluwaat ak yeneen ak yeneen yoo xam ne nit ñi euh, saytaane not na leen ci yaan ci yàlla musal moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ci alquran ne lan yanaala allaha luxumuha wala dimaauha walakin yanaaluhu taqwa minkum borom bi nee na li ngeen def ci aj gi lépp jubluwuma ci dara li ma leen tereeg la ma leen ca sant ak fa ma leen dem loog diggante ba ma ne leen na ngeen ko dox diggante ba nga xam ne nee naa leen na ngeen ko wër loolu lépp li ma ci yitteel man yàlla mooy xool ba natt ci seenu ragal yàlla fan la toll loolu rek moo ci yitteel suñu borom subhanahu wa taala ndax diggante daw daw ci diggante ñaari doj safa ak marwa boo ko xoolee ban ban chance la am ci bu dee xelum doomu aadama rek waaye chance bu mag la am parce que mooy ne yàlla moo ma ko sant xaaral ma dem defali ko subhaanahu wa taala di wër benn néeg kaaba gi ab néeg rek la de ab tabax la waaw waaye suñu borom moo ko màggal ñu dee leen ko wër ngir jaamu man yàlla sànni gi ngay sànni jamara rey gi ngay rey ay xar ndax moom la tudd fii ñun ñoo ko xiyaas ci yee waaye li yàlla tudd fii parce que foofu la ngistal di gën a bare mu ne lan yanaala allaha luxumuha ndax da daa gis koo xam ne moom yitteem jëpp mooy ñaata xar laa rey xar mi nan la toll giléem yi ma rey yaa ngi dégg mel ne loolu muy def day jariñ yàlla yàlla ne ko ndànk rek defal li nga man ca def ko ngir yàlla ndax lan yàlla nee na lan yanaala llaha luxumuha nee na man yàlla doy ma dara ndamal gi ah? kon bu duuf beeg bu ñàkk bee duuf ah? bu bari beeg ñàkk bee bari li ma yitteel dëgg nee na moom borom subhanahu wa taala mooy lan at taqwa minkum ragal yàlla gi nga xam ne moo leen animé ba ngeen di def yooyu ngeen xam ne moom la yàlla leen sant ku ku ku ragal yàlla nag ca def loola nam gën a mate ah loolu tamit moo gën a yàlla maam tekkiwul ne kenn du jël ay nag yu bari wala ay giléem yu bari yoole ko ci kaaba gi wala nga ray ko ci def ko sa hadiyu boo ko defee ci am ko ca yàlla rek tax defoo ko ngir ngistal loolu it lu baax la waaye jàppal ne daal mbir mi dëgg dëgg nekkul ci xar yu duuf yi wala nag yu bari yi wala gileen yu bari yi waaye fa mu nekk dëgg dëgg dëgg mooy li ngay def ngir jëmmi yàlla subhanahu wa taala li ngay def ngir ragal yàlla li ngay def ngir jëfe ay ndigal yàlla subhanahu wa taala bokk na ci objectif yi aj ba léegi ak ay finalité am mooy attaxalli bi makaarimil axlaaq aj dafay tàggat nit ki ci jikko yu rafet jikko yu rafet ay comportement gis nga doomu aadama bu nekkee fii léeg-léeg ak nit ñi fii nga xam ne amoo amoo amoo kenn affaire ah yow man nga ne ba nga nekkee ba nga majeure ba léegi mosoo bokk néeg waxuma laa nag ngay ngay rang ay toilettes ah euh, waxuma laa nag kenn di gis sa sa dara ci sa yaram tey nag loolu lépp yàlla na la diggante bii moom boo moytuwul tey loolu dootul yombati diir bi ngay nekk ci aj moo tax aj am fa ay pratiques yoo xam ne ku ko ku ca nekk ab diir ba ñibbisi yow ak rëy day dañ ci yow. yenn jikko yu bëree bëri day dañ ci yow même siis day dañ ci yow ndax da ngay bokk forcément ak nit ñi waaw di bokk di bokk ab teraay di bokk ab néeg léeg sax nga rang ay toilettes ah ci koo xam ne yow sa say toilette boo moytu yow dong yaa yaa ko daal utiliser ak koo fa yebal koo fa yebal du fa dugg yooyu yëpp aj da koy jàngale ci aj da koy jàngale ci nit ki nga xam ne mooy aji moo tax mu ne inna fil xajji taawidan lin nafsi ah ala sabri nee na aj day dana tàmmal bakkanu doomu aadama muñ muñ mi ngi tàmbalee nga tàqali sa njaboot tukki tukki bu yàgg doo gis kenn ci seen njaboot doo gis kenn say surga yi nga xam ne boo masaan a su suñu jug gaaw doxali la sa yitte fee loo def yaa defal sa bopp wal xilmi ajit dana jàngal nit ki eh, li nga xam ne mooy alxilm mooy maanaam lewet ñaata yoon lañ dafay tooñ jekki jékki ngay dox ba jàgg nit jéggi sa sa armal ji baa nit bëmax la baa ngay wax ak nit déggantewu leen ci aw làkk yooyu yëpp foofa tey boo fa nekkee ca nekk ku gaaw a mer wala nga xatub xol rek doo fa ma nekk ak ñi loolu aj dalay jàngal foofu alxilm waaw wasaxaa nangoo joxe waaw mën a joxe aj tamit da koy jàngale ndax bari na ci fooy toll foo xam ne léeg-léeg génn joxe moo xam da ngay sarxe moo xam da ngay da ngay da ngay maye moo xam da ngay jaamu yàlla ci jaamu yàlla goo xam dafa laaj alal yooyu yëpp suñ borom moo la ciy tàggat ci jikko yu rafet yi wala iffa ni ki noonu tamit maanaam sàmm ndax mbooloo mu toll noonu ak jaxasoo ba fa am góor ñeeg jigéen ñeeg ak lu bare bëri dafay am loo xam ne natiru natiiru aj gi nonu tëddee noonu loola tamit ak la la fa war ak la la yàlla sant yow ci bu mel noonu bu amee boo ci dee tënku dana la leer ci ak sàmm wa tawaado dafay sàmm tamit moom aj jàngal la li nga xam ne moom mooy wàcce sa bopp waxta saamux jéggale moo tax borom subhaanahu wa taala di wax ci alxuraan ne alxajju ashhurun maalumaat fa man farada fihinna alxajja fala rafatha wala fusuqa wala jidaala fi lxajj nee na aj diggante bu gàtt la ay weer la rek yu néew maanaam bu ñu nee ashhurun maalumaat mooy ci ci weer yooyu ci mën a duggee ci aj gi ci ngay mën a yéenee aj waaye duna aj gi ci boobu moo diiree lu toll noonu aj bii mu aj moom diir bu gàtt la daanaka boo ko xoolee euh, génnul juróomi fan wala wala al yawmu saamin ngay tàmbalee bu dee ar bu dee armal nga ba dugg màkka yaa ngi dégg tawaaf yawmu saamin ci guddi gi ngeen dem euh, mina euh, taasia ngeen dem arafat achir muy tabaski gi muy dix-huit jours bi dinañ ci ñëw insha allah taala ci ay détails après bu nga defa fa ñaari fan wala nga fa ñetti fan lim bi kon loolu diir bu gàtt la borom bi ne kon guddul fa man farada fihinna al xajja ku ci arfaan aj fala rafasa na moytu lépp loo xam ne mboosóor la waxoon nañ ko ci sunu rajo bu njëkk bi wala fusuuqa lépp loo xam ne ak ak mooy yàlla da na ko moytu wala jidaala werante na nga ko moytu loolu xam naa ku ajagul sax dana dana xalaat na ndax nit ñi foofu mais boo demee da nga gis ne nit ñi foofu bokk na ci liy yàq seen aj ci bare bari wala mu wàññi seen i tiyaaba mooy werante

kon li ci am solo mooy bu aj jote lu waay bëgg a xam ci diine na dem laaj borom xam-xam yi buñ la waxee lu la doy nga jëfe ko ca noppi ndax bu dee da nga ubbi buntu koo gis laaj ko da ngay mujj dootoo xamante looy def ndax am na ci ay atte yoo xam ne ci lislaam borom xam-xam yi bokkuñu ci ay xalaat bokkuñu ci ay nu ñuy déggoo kon yow bu dee da ngay gis benn mufti fii ah ci dal bi nga ne ko ah man de démb dama def nangam nangam lan la ma lislaam wax mu wax la dara ca xam nga ne kii kat ku jàng diine la ku xam la ca lim la wax tegu ko ci bakkanam tënkul ci loolu waaye boo bëggee gis kii laaj ko suba nga dajeeg keneen waa sëñ bi ma ne démb sax def naa nangam am na ko dema nangam mooy la ah kooku li ma la wax baaxul de wérul bàyyil nga demaat ci keneen mooy la ñoom ñaar ñëpp xamuñu dara lii ma la wax moo gën a wér da nga dem ba aj gi jeex te doo xam looy bàyyi ak looy def maa ngi fàttaliku ndeysaan Cheikh Abdoul Aziz Bun Baz rahimahullah yàlla na ko yàlla yërëm moo nekkoon mufti bu man Arabie Saoudite borom xam-xam bu baax ca yàlla mayoon ko lool ci mu déggoon diine euh, buñ masaan a euh, dem booba ñun ay étudiant la ñu ngi université bu Médine xam nga université moom amul problème maanaam lu ñu gën a mën a xóotale xam-xam rek moom amul problème mais nag daf nañu bu ngeen demee nag di jàngal ujaaj ji parce que dañu daan def bu aj gi jotee ñu jël étudiants yu Médine yi ak yeneen étudiants yi ci des yóbbu leen ci aj ga ñuy jàngal ujaaj ji nu ñuy ajee mu ne ñu maa ngi leen di moytuloo bu ngeen demetee dee leen jox ujaaj yi nga xam ne ñoom seen yoon newul ci yéen ci seen discussion yu xóot yi ci jox leen rek loo xam ne bu ñu ko defee ñoom seen jaamu yàlla nangu waaw mais yenn débat yu xóot yi ak yi nga xam ne moom ngeen di débattre ci biir faculté bi ngeen nekk bu leen ko fa yóbbu ndax loolu dafa leen di jaaxal ñoom su ñoom dañoo ñëw ñoom diir bu gàtt pour jaamu yàlla dem léew li nga jàng lépp ci sharia nga bëgg koo nettali ci benn bis wax ko ne ko borom xam-xam nee na nangam Malik nee na nangam Shafii nee na nangam Ahmad nee na nangam Ibnu Hazm nee na nangam day mujj da koy jaaxal sax kon seetal loo xam ne ni lu tënku la loo xam ne lii ku ko def yàlla nangul la sa aj nga wax ko ko ci sharia moom mu dem loolu nag ba léegi tullaabul ilmu yu bari bàyyi wuñ ci xel dañuy ñëw du dugg dugg ak ujaaj yi ci ay détails yoo xam ne mën naa ñàkk waaw di leen andil ay werantey borom xam-xam yu bari yu jeex yu yu njëkk yaa yu mujj yi ba ujaaju duñu xam lan la ñuy def lu ñuy jàpp lu ñuy bàyyi loolu lu jar a moytu la kon daal mu ne fa huwa mawsimun خير يهيئ للمسلم فرصة الاستزادة من مكارم الأخلاق وجميع الخصال liñ bëgg wax daal foofu liy tënk mooy aj daal kon ndeke période la boo xam ne occasion la boo xam ne traite la boo xam ne képp ku bëgg a tënku tàggat sa bopp ci jikko yu baax bu la tëwoon boo ajee yàlla man la cee dimbale bi ci mujj rek yu bari la waaye bokk na ci wala bokk na bi ci topp ci bi ci mujj mooy assuuru bil intima gis nga aj dafa am lu muy yee ci doomu aadama mooy lan mooy da yee ci yow appartenance bi nga am ci al umma al islamia da ngay xam ne kat man kat ndeke man dama ko ne diine l'islam kat ak julit ñi sénégal rek la yam waaye boo gisee mbooloo ma ca màkk kii jóge pakistan ki jóge chine ki jóge euh, turquie ki jóge algérie fenn fu ne nit jóge fa ca ñoom ñëpp di wax benn baat di wax labbayk allahuma labbayk di ànd ak yow di julli di di di def mboolem jaamu yàlla nga ne ah kon ci ngay xamee màggaayug lislaam ak yaatoom ci àdduna xam ne ñoom ñii ñëpp nag yàlla dafa laa waxoon ne la wenn xeet lañ maanaam der bu weex bii kii yor baa bu ñuul bee kii di làkkilee bu mu tax mukk nga jàpp ne am ngeen benn baras yaa ngi ñoom ni leen di xoolee na ngi xoolee comme ñi nga xam ne yaa ngi ñoom yéen a bokk réew boo fa nekk naan ah waaye yi ni ngeen sonlee wala yéen naar yi am na ñoo xam ne fi Sénégalais yow ne problème bi ñu am mooy problème mu naar maanaam buy eggee lu ñu lu lu sikk lu ne ñu ne ah xoolal naar yi rek lii ñuy wax affaire bi du naar du wolof du ay pël ki joolaa ñun ñëpp benn umma lañ loo xool ci xeet wee ba di ko bon lu rek mi ngi ci yow mi ngi ci saw xeet waaw loo lu baax lu nekk ci moom it ci saw xeet boo demee dafa gis ñu baax kon benn umma lañ rek waaw umma bi nag moo am ñu baax am ñu euh, mel ne neen am ñu jub am ñu jubari waaw kon loolu tamit nañ ko moytu bu baax a baax ci jamono aj jàppe ne benn ña fa daje ñëpp wenn xeet lañ ña fa daje ñëpp ay mbokk lañ loolu lu jara xam la moo tax borom subhanahu wa taala wax ne wa adhin fi nnaasi bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq wa fenn fu ne ci aduna bi loolu aaya bi mënoo ko dégg ci demoo màkk maanaam nit ñu wuute ñoo xam ne mosoo gis façon doomu aadama yooyu ngay dajal ci kaaba gi wallahi maanaam loolu it dafay wane tamit manam yàlla subhanahu wa taala xewal gi mu defal l'islam batay amul fenn fo xamne ni tay l'islam eggu fa lol nak day wone ne kon julli ñi dañu wara a bëggante julli ñi dañu wara jàppante ñi ñi dañu wara fonkante bokku na ci njëriñi aj moy shuhudul manafi' manam ay njëriñ yu fa nek yu bare bari nak yo xamne yu aduna la way yastamilu hajj ala manafia diniyya wa dunyawiyya kathira aj bari na njëriñ jamono aj gi nit ñe fay dajje borom xam-xam ya fay dajje yaa ngi dégg yow relation ya fay amaat ak yeneen nit ak ay nit ñoo fa xamanteel moo xam say ñoo bokk réew la waaye foofu ngeen daje foofu ngeen mas a xamante ba ci commerce bi am ci biir aj aj yàlla subhanahu wa taala nañu tere wuma leen ngeen jamonoy aj ngeen sàkku seen wërsëg waaw ba ci jamono aj nit ñi tey am na nuñ ko doon organiser aj gi war naa mën a ànd ak benn foire international boo xam ne réew mu nekk dañuy indi la ñu am ñu teg ko fenn ko soxla dem jëndi ko ci biir aj gi loolu aayul moo borom bi ne li yashadu manafi'a lahum wa aj gi bëgg bu ngeen ci ñëwëteel la ngeen fa fekk ci ay njariñ lépp lu ngeen ci mën a jariñoo ngeen jariñoo surtout ci wàllu xam-xam ci wàllu économie ci daje bay julli ñi daje di waxtaane seeni mbir loolu lépp ci manafi'ul hajj la bokk nekk noonu iqamatu zikrillah ca loolu nag moo dajale lépp ci li ñu waxoon léegi mooy aj dafay teewal màggu gi yàlla jamono yu nekk sa xel di nekk ci sa boroom sa xel dina ci sa diine aj gis ngeen ko yéen ñi nga xam ne aji ngeen macha allah tabarakallah maanaam waxtu wu ne sa contact sa digganteeg sa borom dafay yaa ngi ci connexion daal waxtu wu ne bu naa wax loolu maanaam ni ngay nekkee ci lu dul aj léeg nekk ci ne léeg nga dugg ci leen loolu jamonoy aj lu néew lay doon ndax da ngay yëg ne yow yaa ngi ci jamonoy jaamu yàlla waaw boo déggee sax koy wax sax ah dégg sëñ bi dégg sëñ bi bu def da ngeen a fàtte xanaa da ngeen a ci aj nag nanga ma nanga subhanallah donte jullit bu nekk noonu la war a mel jamono ju nekk waaye comme loolu mun tëg continuer suñu borom utal ñu ay mawaasim yoo xam ne ay jamono yoo xam ne moom dañ ciy takkoo ak tudd yàlla moom ak màggal ko ni ñuy mel ci koor ni ñuy mel ci bu aj nekk bu ñu boo dee da ngaa aji diggante boobu da ngay daanaka ñëppay baax <laughs> jamono aj ujjaa ji ko ji gis ni ku sell lay doon lu waay sàggan sàggan tabaarakallah boo ko gisee ci aj gi rek daan ah xanam nga day leer naññ mu bëgg julli waxtu ko ne ah waaw jullee guñ noddu guñ maam di laaj waxtu julli di def beneen mbir bu ma gën a yéen ci ujaaje ci pratique yi nga xam ne dañ koy tàmm foofu mooy julli mbooloo mi maanaam bu heure bi jotee ñépp dañuy wàcc ba essentiel yi sax day day fees ñi ñi ñi ñiy jaar ci escalier yi dem julli ji allahu akbar lu am solo moo te doonte julli mbooloo ah xam naa fee moom tiyaaba ji tollu ndax fee moom suñu borom tiyaaba ji da koy ful ni mu la war a ni nga wara gor góorgóorlu ci julli mbolo ci foofa tamit nga wara julle fi waaw bu defé da ngay gis ah waxtu wu ne jug xal ma gaaw jàpp e no duguñ man xal da ngay gis koo xam ne sax pour baña tard ben waxtu bu eggee ci Kaaba ga da fay tok ba julli julli yëpp do nga ñibisi am ko xamne mom day xol heure yi nga xamne arrangé ko ne kon xaaral ma dem takusan bu takusan fa day tok ba gee allahu akbar lolou lépp day wone jublu gi ñuy jublu yàlla waxtu woowu ak yàlla ni mi nekk ci seen xel ci jamono jooju moo tax jam ni ngay def lépp ci aj gi loolu rek lay jëriñ maanaam mooy fàttali la yàlla teewal yàlla ci sa xol suñu borom subhanahu wa taala nee na fa ida afattum min arafat fadkuru llaha inda al mashari al haram gis nga jamono ji ngeen dem arafat mu ne maanaam bu amul fenn foo xam ne fàtte yàlla wala sàggan xaj na fa foofu mi ngi ñuy digal ne diggante boobu nga xam ne ak eggagu leen minan sax nekk ci al mashari al haram ca mooy musdalifa mu ne na ngeen na ngeen fa taxaw ngeen tudd yàlla julli fa ay ràkka ñaan maanaam waxtu wu ne looy def rek am am na lu ñu la fay sant amul ben temps ci bu bu boo xam ne dafay dafa dafa dem ci ci ci lu ak jaamu yàlla wa llaha fi ayaamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa diggante bi ngeen dem ba sànni jamra ki tabaski ba dafa aw sen tawaful ifada ñetti fan yeen fi def yëpp lool rek lañ fi def tuddi yàlla ya nga deg ñaan julli dem sànni jamra ñetti fan yoy yëpp wala ñaari fan yi ci ko xamne ne da ngaa yàkkamti comme ni ko borom bi subhanahu wa taala waxe وحد فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا muy geneen jaamu yàlla pour wax ne même bu ngeen noppee sax ba aj gi jeexit delluwaat leen ngeen continuer di gën a tudd yàlla subhanahu wa taala arab yi nag buñ commencé def ba pare dañuy dem daje fenn kenn ku ne di kañu di tudd sa baay di tudd sa maam di di di waxtaane seen baaxi maam yàlla ne kaaba gi moom ak makka ak aj gi moom bëgguma faa dégg kenn ku dul man yàlla subhanahu wa taala bu leen fa woo kenn bu leen fa waxtaane kenn bu leen fa màggal kenn ku dul yàlla waaw arab yi dañ daan def ba masaan aj ba seen aj jeex ñu def seen benn xayma kenn ku nekk ñëw tàmbali sama maama jaar fii sama maama def lii sama maama sama xeet sama askan yaa ngi dégg xam nga arab yi dañoo basaan a bëgg li ñuy tuddee al faxar faxar mooy wanewu waaw wane sa tolluwaay loolu suñu borom taala da koy tere ci aj boo nekkee ci aj même la ngeen fa keneen fa yóbbu kenn la muy yàlla la leen fa yóbbu lenn la muy lislaam waxtaanee leen fa yàlla ak lislaam lu baax lu ne dugg na ci biir waaw ba ci jullit yi sax li gën mooy bu leen jël seen bopp dem ba ci aj ga def seen bopp ay groupe waa diw sàngam ña nga fee waa diw sàngam na ñëpp ànd lu ñuy def lañ ko defandoo waaw ndax loolu mooy li nga xam ne mooy jubluwaayu aj gi moo tax yonente saa salaam di wax ci hadith boo xam ne aïcha radiallahu anha moo ko solo mooy wax ne innama juila tawaafu بالكعبة وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله dégg nga yow sam nee na gis nga kaaba gii ñu leen wax di ko ñu leen ñu leen di wërloo ak daw gii ñu dawloo safa ak marwa ak sànni jamra yàlla nee na defuma ko ngir lenn lu dul bëgg waxtu wu ne ngeen may fàttali ko man yàlla subhanahu wa taala ba ba genn càggante di am ci diggante bi wala wenn waxtu woo xam ne sa xel dana génn ci yàlla subhanahu wa taala ndax diggante bi yii yëpp ay mbir yu jegee la boo ci jugee rek yaa ngi ci beneen boo ñëwee tawaaf ngay njëkk a def diggante boobu macha allah sa xel mépp ngi ci sa borom ndax yaa ngi ci kaaba gi yaa ngi ci wetu ab néegam di ko wër di ko ñaanal di di tudd aw turam nga jóge fa taxaw maqaamu Ibrahim fa nga xam ne fa Ibrahim taxawoon di tabax kaaba di tabax kaaba gi ba léegi boo eggee da nga gis jeexital tànk Ibrahim bi fi mu tegoon xeer wi suñu borom subhanahu wa taala moo ko sàmm ngir wan ñu màndarga yi kàttanam boobu borom subhanahu wa taala nga julli fa ñaari rakka diggante boobu naan sam-sam bu dee euh, jege na la wala nga bàyyi sax ba tawaaf ba pare waaye ñu ci bari buñ paree rek dañuy dem directement zam sam daal di naan euh, barkeelu ci ndox mu sell moom nga xam ne moom it suñu borom moo ko ballaloon kenn ci ay jaamam ngir terale ko ca léegi ba léegi mi ngi continuer nangami junni at ba léegi musta déy bu suñoo wax ne ndax amul ndox tey wala leen ak la fay ñëw ci ay nit jamono ju nekk di naan ak di tànk ndox ma di yóbbu nga fa ñu ne nga yéeg safa daal di jàng ayat yooyu inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawa fihima wa man tatawwa khayra fa inna allaha shakirun alim abda'u bima bada allahu bi daal di commencé ci tawaaf safa daal di dem marwa dikkaat diggante boobu tamit da ngay tudd yàlla ba keroog ngay pare bu dee ko doon umra la umraam ko fa daal di yem mu xaar ba ëllëg mu daal di doog a bu dee dafa tamattoon daal di solaat yéreem ànd ak ñi nga xam ne ñooy aji eh, bisub eh, yow mu tarwee muy huitième jour ci tabaski continuer di def la bay maanaam diggante boobu càggante xaju fi fàtte yàlla xaju fi moo tax borom bi ne yii yàlla subhanahu wa ta'ala ne lii li tax ma digle suñu borom sant ñu ko lépp mooy suñu connexion suñu diggante ak suñu borom jaamu yàlla gi ñuy jaamu yàlla teew gi yàlla teew suñuy xel ñu fexe ba diggante boobu dara du fi prendre innama ju'ila at-tawaafu bil kaaba wa bayna as-safa wal marwa wa ramyu al-jimaar li iqaamati dhikrillah nee na yii yëpp tudd yàlla ak teewlu yàlla waxtu wu ne ak di ko xalaat ak di ko fuglu ci lépp moo tax man yàlla subhanahu wa taala ma yoonal lii kon loolu mbokk yi moo doon li nga xam ne mooy euh, jubluwaayu aj ak ay finalité am gis ngeen ni mu amee solo kon xam ndax yàlla amul lenn lu mu santaane rek loo xam ne lu dul ne am na ay jeexital ak ay njariñ ci jullit bi koy def moo xam xam na ko wala xam ko da koy sax ndax faawu jeexital yooyu dana feeñ ci moom bu ko defee ba noppi waaw muy nag loo xam ne xam gi li tax mu am njariñ mooy awwala dafa lay sawarloo ci jaamu yàlla fi mu toll mboolem ku xamul woon lii tey wala ajiwul woon tey boo déggee lii da ne ah lii de koy lii war naa tax kenn ku ne góorgóorlu ko dem aji kat ndax lii macha allah dana ma defar ma nekk jullit bu baax dana tax ma gën a jege sama borom waaw da boo ko defee ba noppit danga nga mën a évaluer sa bopp boo ñibbisee da nga xool li soppi ko ci yow da nga ko xam te da xam ne ah lii kat ak gee ko ay habitude yoo xam tàmme woon nga ko foofu boo ñëwee fii ah macha allah man day avant may dem wax dëgg yàlla daanaa julli mais nag ni ma fonke woon jàkk moom desoon na nga gis foofa daanaka nit ñi duñ jullee ci lu dul jàkk nga nekkoon ah ñi kan wul ñu ñoo gën kon ñun ndeke suñ jàkk yi tabaxuñ ko rek ngir bàyyi ko fii bu ñu bu ñu kàbbaree ya gis ñaari sàppe ak ñetti sàppe foofu da ngay gis waxtu yi yi di fees dell ah boo yeexee sax doo am place nga ne ah loolu de mën naa mënumaa fexe ba Sénégal yëpp def ko waaye man de bu soobee yàlla saa yu ma fa ma sama waxtu julli moom ak sama li ma man danaa ko def ci jàkka ja bari na ñoo xam ne ni avant aj ak après aj ku leen xam xam ne ñii aj moo tax léeg-léeg nga dégg nag euh, am ñuy wax naan aj daal aw tur lay changé waaye du changé jikko ah kay da nga dégg ñi ko wax du changé tur sax ndax ba nga ñëwee ba léegi euh, Abdou Cissé nga tuddoon moom nga di sax alaaji ji ñu ci dollil al alxaaj mooy kii jamono kii nga am ne mi ngi pratiquer aj gi jamono yi mu koy def mi ngi mel na nga ne almusalli maa mi ngay julli musalli nga est-ce que boo fi jógee ba ci kër gi dañuy continuer naan la almusalli kenn du la ko wax waaw alxaaji mooy le problème mooy jamono ji ki nga xam ne yaa ngi def jamonoy aj kooku la ñuy tuddee alxaaji boo fa jugee jeex na eh, sama mbokk yi sama mbokk yi lébu yi nag ñoom moom jaral leen xeex moom ku ci aj màkk ba ñëw bis boo ne ko wul alaaj am nga problème wala ajatatu bu dee jigéen fekk na dara jëru xuloo jëru xeex waaw kon aj dana soppi jikko dafa war a sax soppi jikko waaw dafa war a soppi jikko waaw léeg-léeg nag nga dégg ko koy wax parce que man naam da cee gis ay cas yu bari waaw aji ba pare ñëwaat tabarkaale ci ëllëg si ñu ne ah alaaji diw sàngam moom lañ tuddee euh, làmb ji wala moom lañ tuddee nangam loolu ñaata ni nga koy dégg ci nit kon incha allahu taala li ñu jeexale ndax waxtu waa ngi bëgg a dog mooy rek loo xam ne dañ koy tudd nii incha allah euh, ndax bëgg nañ téere bi incha allahu taala jeex balaa balaa ujaaje euh, tàmbalee dem mooy suruutu wujubil xaj loolu it incha allah taala moom lañ koy tënkee mooy aj dafa am ay charte yoo xam ne mooy tax mu war la ba ci njëkk mooy al islaam aj ab jullit la war bi ci topp mooy at taklif nga nekk mu kallaf mu kallaf mooy koo xam ne majeur na ànd akum xelam bi ci topp mooy al al istitaa mooy nga man ko ku ko mënul yàlla tegu la ko wal xurriya mooy nga libre maanaam nekkoo ab jaam waaye tamit nekkoo ci loxoy yoon wa am nu tariq na fekk tamit yoon wi sécurité am fi ba nga yaakaar ne kat mën naa dem ci jàmm dikk ci jàmm ca dara du arrivé ci yoon wi loo xam ne maanaam musiba la moo xam ne daf mën naa sama bakkan mën euh, des wala sama alal wala sama ormo waaw euh, bu dee jigéen wa zawja awil mahram lil mar'a bu dee li ci jigéen ji aji mu ànd ak borom këram bu borom këram demul mu ànd ak koo xam ne koj armalam la koo xam ne ni mu munu koo takk daal waaw borom xam-xam yi ne comme nag wax dëgg yàlla comme ni ko Aïcha waxee radiyallahu anha ci benn xadis du jigéen ñëpp am jëkkër te tamit du jigéen ñëpp la seen i di dund te buñ bëggee aju nu ñuy def borom xam-xam ne kon ar rufqatul amina na ànd ak convoi boo xam ne groupe boo xam ne mën nañ koo protéger ba lépp lu ko nar a dal ci yoon wi nañ ànd ak moom jàppale ko ba loola bañ koo dal parce que loolu rek lañ ci jublu kon aj ñooñu la war euh, kon waju warul kulul julit warul xale a ah, warul euh, niki noonu koo xam ne mënu ko ci yaramam wala mënu ko ci alalam warul mooy maanaam bu ko deful du ci am bàkkaar waaye ñii ku ko ci def wala ñu defal la ko wala ñu jàppale la ba nga mën koo def yàlla nangu ko subhaanahu wa waaye nag coo maanaam moom ci boppam du ci am benn bàkkaar bu ko deful koo xam ne nii maanaam sart yi réunirul ci moom kon loolu mooy euh, li nga xam ne mooy suñu sunu darsu tey incha allahu taala leçon bi di ñëw ci la fas yéene leeral anwaau nusuk aj genn jaamu yàlla la waaye ci biir aj gi dafa am ñetti type aj yoo xam ne bokkul am na aj gu ñu tuddee ifraat am aj gu ñu tuddee xiraan am aj gu ñu tuddee tamattu incha allahu taala ñi ngi ñaan yàlla may ñu fekkee ak tal bañ gën koo mën a détaillé euh, ba mu gën a leer ci jotaay bu gën a yaatu هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته